abu dem ba baayu ma aji aram boy ma yaayam yaa ba ku doonu ba baaxe bosse la moom la du saya hee nura bin libu yi ko moom sekk njaay kaatu man njaay abu dem ba baayu ma ñi judd suur dafa judd ci lalu yaayam alal jamaa seet moom Amadou Assane Ndoy sa baay maam Tanoor Ndoy sa maam Njóg Ndoy mooy sa maam Gànnaar Ndoy mooy sa maam may xaraak bay may wax ni Cheikh Alassane Sène mii ñun waa Bargny dañ ko war a dooleel taxawu ko si 2024 bii ñu jëm gis nga mois des si élection yi dañoo war a takk suñuy sër takk suñuy tubay fas yéene ak bi. dañ lay topp dañuy ñëw si yow ba foog a bëgg parce que ku ñu jëngoor yaa ñu sonal yaa ñu jëngoor ay lëbu la ñu dugg anal yeer sanga may bu ñu toogee fii tey yow yaa tax. mënuñu ko fay liñ koy fayee nag mooy incha ñu takku jàppale ka fii si ñi ba lu ñu mébét ci 2024 yàlla def ko président ci kantanu yàlla ak yonent ba. képp ku ñëw fii ma gàntal la xam nga lu tax ma lay gàntal. parce que damaa toog ak jëmm ji. mu wax ma wax joo xamante ne wax juma ma doy la. Cheikh Alassane Sène mii moo a dugal ci politique ku ne woo nga ma bu ma ñëwee ci yow bu ma la xoolee ñaari fan rek ñetti fan rek dama la fay bàyyi dem sama yoon barke Cheikhul Khadim mais moom jikkoom laa ko jàppee. ak bëgg sëriñ Touba ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bind ci di kilifa diine yëpp ay livre message bii may wax dafa am ku yor suñu yëf ba pare bañ ñu ko delloo muy président Macky Sall ñoo la joxoon 2012 delloo ñu suñu yëf ndànk def nga fi fukki at ak ñaar nga jëm waxoon nga ñu ne di nga soppi suñu ay dund ndekete dang ñu teg dil soppi nga dund sa famille soppi dund say xarit soppi dund sa belle comme yàlla def na àgguloo ci soppi suñ dund delloo ñu suñu yëf ndànk dama ne aw la noo woteel noo teel yow la noo woteel dama ne aw la noo woteel aw la noo woteel aw la noo woteel aw la noo woteel aw la noo woteel